Sénégal ñoom ñu toogoon ne duñu waxtaan ak ñoom bokkul dans la démarche. démarche yi bokkul. Mhm. maintenant nag la nga xam ni moo ñuulal dialogue bi ñaari mbir la. nan la. muy l'affaire de la plainte des magistrats sur la corruption de deux milliards ci mbirum élection yi. Mhm. balaa ñu doon woote dialogue ak concertation sur les sur les sur la sur la juridiction waroon nañ leeral loolu ba pare. mbirum corruption bi ñu tuddee tudd ci. magistrat yi cour des magistrats yi nga xam ne ñoo bokk. conseil constitutionnel ak seen candidat. beneen waaw moom laa wax dañ ko war a leeral. waaw askanu mhm. senegal mu leer. Mhm. leneen bi nga xam ne mooy gàq-gàq bi nga xam ne woon war a gën a taqal assise dialogue bi. sur la justice c'est l'arrestation arbitraire le kidnapping arbitraire de Bah Diakhaté. ah bon. aadama nag nag. xam nga tax ma wax la nan nga jàppee ba jaxate wax li mu wax ne am na ay preuve woo ko kay. je pense que c'est aussi simple soxna si maa ñàkk ñàkk preuve. ngeen ngeen ngeen leen jàppoon Sonko tëj ko soxna si soxna si toog tribunal. waaw. ba muy commencé ba ba muy jeex. waaw. luy preuve lu dul preuve dëmm ba jaxate teg na ko ci table ji. ah oui. loolu tax ma ne sunu ndaw bi jógee Sénégal set te nekkoon ca saal boobee. moom nee na euh, lépp li nga xam ne mu ngi tudd ci wàllum homosexualité yëkkati ko kàddum foofu mooy wax nii ci ci ci ci micro bi. ma dama ne. waaw lépp luy mbirum borom ñaari tur ca vidéo buñ koy njëkk a toppee. Mhm. deux la c'est pris en charge par par par par par l'amnistie. beneen vidéo bi nga xam ni moom lañ koy toppee te bokk lan ci enquête préliminaire yi. Mhm. jiiñu fa benn yoon. waxu ca benn yoon wax joo xamante ni parce que moo def ba mu taxawee ca baro bi daf ko assumé. d'accord man mi fa newoon déglu plaidoirie euh, <laughs> soxna si. Bah Diakhaté baax ma Bah Diakhaté de. Mhm. de la mhm. ba mu toogee ca biir salle ba di def plaidoirie yi. il a dit tout sauf le droit. il faisait que de la politique. ah la. mais ma assumé li ma wax. xam nga lu tax ma wax la ko. Mhm. xam nga lu tax ma wax la ko. ki nga xam ni moo tax mu autosaisir di Ousmane Sonko yor titre premier ministre Ousmane Sonko fa mu taxawee wax dafa ne waxul en tant que premier ministre. procureur bi ne premier Ousmane Sonko premier ministre la. moo tax mu autosaisir pour daan Bah Diakhaté. d'accord Bah Diakhaté ba pare beneen mbir fekk na Ousmane ba muy wax 2022 fekk na nekkul woon premier ministre. Mm. ba muy waxaat. ci affaire université ba fekk na mu nekk premier ministre mais Ousmane Sonko moo toog ci euh, kii ba ne du premier ministre il ne parle pas en tant que premier ministre donc il parle en tant que chef de parti c'est un citoyen lambda c'est lui qui devait porter plainte mais c'est le juge qui s'est autosaisi deuxième chose rapidement ci article yi ñuy toppee Bah di article mhm. di wax ni quelqu'un koo xamante ni dañu yëkkati ay pouvoir jox ko premier jox ko ko Mhm. pouvoir du président de jox ko ko. procureur bi ba léegi génnewul décret bi nga xam ni moom la ñu bind jëkkati pouvoir yooyu jox ko premier ministre jox ko jox ko jox ko jox ko premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. su décret boobu génnoon suñu toppee baa jaxati su article 254 alinéa 2 ak 255 su boobaa kenn du wax loolu tax ma ne la baa jaxate otage politique la. d'accord otage la li koy gën a firndeel. Mhm. mooy fi ne nii. il va faire face au procureur pour une deuxième fois. waaw ci beneen plainte bu yees. plainte bo boo xamante ni ba ñu xamee ni ñàkk nañ procès bi la ñu activé waa ji. ah pour yow ñàkk nañ procès bi nii. wallaahi procès bi ñu war fii laay waxee su nekkee juge yi droit la ñuy wax juge yi ma gis ñu toog liberté pro kii lañ doon kii sursis lañ doon doon daan baa jaxam. d'accord. mais xam nañ ñàkk nañ ko parce que maa dégg procureur di wax. il avait des problèmes pour sortir les mots. ñàkk nañ ko kat ñu ngi koy. maintenant nag le 3 bu ñu ñëwee bu ñu délibéré. déggoo li ma la. Mhm. le 3 incha allah Bah Diakhaté day ñibbi këram parce que otage la ñu activé fee kay dem porter plainte malheureusement pour eux propos yi mu yóbbu c'est pris en charge par l'amnistie. tegal foofu sa baaraam. amnistie bi dinañ ci ñëw ndax euh, dafa mel ni euh, dafa am jafandu daal ci amnistie bi lu ñu wax rek ñu ne amnistie bi dindi na ko amnistie bi amnistie bi dafa leer de dafa jël fourchette tegal foofu sa baaraam da ci laay ñëwee laaj juriste bi parce que yaa ngi mu ngi tuddu léegi ay article di di di wax ay euh, si le droit est dit et cetera ci par rapport ak affaire Bah Diakhaté alors en tant que juriste est-ce que da ngay partager les mêmes propos que que Adama avant ñoo ñëw ci assises bon encore une fois droit dafa nekk loo xam ne dafa sew. ñu mhm. ñu ko jàpp jàng cinq ans et poussière des fois dafay am ñuy rëcc. Mhm. Massamba su ma gisee le Sénégal lambda bu taxawee le procureur en tant que tel waxul droit bi en tant que tel. Mhm. damay xaw a inquiété wu damay xaw a damay xaw a jaaxle parce que nañ nañ nañ waxante dëgg quoi fii Sénégal Sénégal on n'a pas besoin de voir un chat pour pointer le chat pour dire que ça c'est un chat. Hmm. Ousmane Sonko c'est un ministre c'est le premier ministre qu'on le veuille ou non boo tegee ay tuuma ci kawam. Hmm. le procureur en tant que tel am na droit autosaisir waaw hmm. bu autosaisir dina la def demande nga yow wuy ko. boo ko wuysee dina la wax tuuma yi nga wax ni fan nga ko teg léegi nag yow charge yi teg sa charge yi nga xam moom nañ teg sa kaw yaay toog nga défendre. li nga doon wax bu fekkee dëgg la nga dëggal ko. indi ay preuves. ay preuves mais la majeure partie boo la indee dañuy commencer di reformuler les propos affaire ak yooyu. la majeure partie. loolu la ñuy def non non bu ma dagg. Mhm. c'est pas c'est pas respecté quoi nit di wax nga koy dagg affaire yooyu parce que may naa la nga wax. Mhm. lu yàgg ko quoi mhm. ma defuma dara quoi. waaw dama bëgg ngeen di wax di jokkalante après c'est ça quoi comme léegi nag bi ñu ko wooyee moom <laughs> wax na li nga xam ne moom la waxoon. waaw léegi nag ki nga xam ne moom mooy le procureur waaw bi mu taxawee moom jug na mu wax. Mm-hmm. li ko li ko yoon jox ak li ko yoon teg. évidemment comme loolu moom loolu mooy rôle am foofu. Mm-hmm. nañ def nañ def nag procureur bi procureur Macky Sall la de. ah bon ah mm-hmm. procureur bi fi nekk seen procureur bi fi nekkoon la de changé guñ ko de. kon nag booy bi ñuy wax ne ñun ñoo fi nekk. le procureur bi nekkoon tribunal de c'est pas Abdou Karim Gueye. le procureur bi nekkoon tribunal. c'est pas Abdou Karim Gueye. ban procureur moo fi nekk. c' le procureur bi def ci tribunal. dégg le procureur si. parce que y' a plusieurs procureurs. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw pour préciser. le procureur général mooy Abdou Karim mm-hmm. ki toog ki ki autosaisir par rapport à la question. ce n' pas Abdou Karim Gueye. le procureur si. qui a le dossier. mais léegi qu' Uh-huh. procureur si Abdou Karim Gueye qu'importe procureur rôle am mooy autosaisir li mu wax ci li mu ah. wax ci ci ci yi ni mu uh-huh. ko ni mu ko waxee nii uh-huh. ne article bi dafa dafa jox trop de pouvoir le premier ministre tey premier ministre maanaam Ousmane Sonko en tant que chef de parti waroon dem plainte ndax kàddu yi ko est-ce que da ngay partager même avis loolu parce que newul ne dañuy jox premier ministre moom nan la kañ la yëg ak kañ la a jox premier ministre hmm. ko yenn ah kon nag kon nag l'article. bu fekkee moom non non bu fekkee moom gis nga ko kay moom. non non non non kon article 254 bi ah. procureur wax. Ah. ak article 255 bi ñu toppee Bah Diakhaté kon ah. warul puisque décret amul kon warul. waaw yow ay principe nga may wax. que yoon bu nelee principe am na exception. Mhm. procureur amul mbindeef bu xam ne mënul autosaisir ñëw ne la wuy si ma am na doole bi. am na prérogative bi en cas d'offense au chef de l'État. waaw mais déggoo lu ma la wax <laughs> la haute fi tey jii. j'ai dit les dignitaires l' état loolu ñoom ñooy ñoom lay représenté tey la haute cour de d' offense au chef de l' l' mhm. tey jii boo xoolee la haute cour de justice tey jii pour dignitaire yi nga xam ne ñi ngi nekk ci état bi ñoom la fi nekkal te dignitaire nekk ci état yi génn ci ministre. non non non génn ci premier ministre ah, ainsi de suite. Mm-hmm. président ñoom ñëpp ñu ngi si képp ku nekk si gouvernement bi. génnoo ci mais pourquoi sénégalais yi sénégalais bu taxee waxtuuma nit ñu woo ko ñu ne non ñu ko woo ainsi de suite affaire ak yooyu. Mm-hmm. que ñoom ay jamono ñaata nit lañ fi woo jàpp leen ci yooyu. kenn xamul nu mu toll mais monsieur Samba aussi est-ce teg foofu suñu baaraam. tuuti mhm. ci wàllum amnistie bi. Mhm. Euh, parce que dañ ne woon dañuy amnistie ay faits. Ah. Euh, jóge ci deux mille vingt deux. ba euh, de mille vingt ba deux mille vingt mhm. quatre. Ah. alors bu fekkee ba jaxate kàddoom yooyu mu ngi ko yëkkati ci intervalle boobu. Ah. est-ce que tey le régime actuel bu ñu toogee war nañu mën a topp ku bees gi naam bu fekkee anéantiruñu li nga xam ne moo di loi d'amnistie bi. waaw léegi régime bi topp ko le procureur en mm. mm-hmm. mooy xool li nga xam ne yoon la yoon. ah oui mu topp ko. le procureur n'est pas indépendant. waaw mais loolu sa xalaat la le procureur n'est non non non mais la juridiction. waaw sa propre opinion la juridiction. nag. dama lay laaj yow droit pénal nga jàng wala droit privé. non dañuy leer. parce que aussi il ñu mmh. laaj la ban droit nga jàng. waaw procureur. waaw très bien. kon mmh. nag bul dugg ci droit pénal. donc dama ne le procureur. Mmh. il représente le parquet. il mhm. représente le ministère public. donc il n'est pas indépendant. ce sont les juges du siège. Mhm. qui sont indépendants. les juges les juges assis. qui sont indépendants. et les magistrats de siège. ñooñu ñoo indépendant. mais léegi léegi contexte ma la waxee non ah. très bien c'est-à-dire le procureur il a beaucoup de pouvoir. le procureur su la su la su nee mandat de dépôt nit du ci teg baat dañuy dem defal la mandat de dépôt mhm. te du ko justifier mhm. donc le procureur il n'est pas indépendant il dépend il représente la, le pouvoir public il dépend directement du ministère de l'intérieur askan bi la fi nekkal moom lay représenté mhm. askan bi mooy lan askan bi la fi nekkal ñoom lay représenté mais droit ñëpp mooy faire la justice quoi mais looy wax nii léegi nii léegi boo taxawee wax loo xam ne naka sunul noonu

mais sur cette affaire y a pas eu offense au chef de l'État mm-hmm. il s'est autosaisi parce que dafa sob loolu sa opinion personnelle la propos yi ñëpp déglu nañ ko te dégg nañ li mu ci wax mm-hmm. ku mu waxal mu waxal ku mu waxal kon la waxal au chef de l'État wala euh, <coughs> le chef de l'État la waxal wala doo gis saa tey naa ndax lii saa wala je pose une question waaw mais dénomination bi bu mu waxee Ousmane Sonko c'est c'est le premier ministre est-ce que le président lui a donné des pouvoirs où est le décret où le président pour que le procureur puisse s'autosaisir. waaw léegi yow procureur bi day xaar. yow yaa toog fi ma décret boobu amul. waaw déggalu la décret bi yow da nga fi da nga gis fi nga bind. non waaw yow yaa ne amul. waaw ma la donc il ne mm-hmm. Mm-hmm. du apprécier les faits à sa manière. Mm-hmm. bu koy apprécier à sa yow lay déglu wala Samba wala Paate. pourquoi il ne l'a pas apprécié avec Azoura Fall. bon quand il le président de la ah, République déglu ma la. et quand il a insulté le premier ministre ultime ah. conviction ah, lim jàng ak lim li ak feey mhm. lay jël mu méngoo koog loolu. merci waaw kay est-ce que tamit jàpp ñu Alioune Fall daa juumoon rek et puis. Euh, ah, avancé kon jàpp jàpp ne Ba eh, Jaxate dafa continuer nekk un opposant peut-être c'est ça tegal foofu sa baaraam euh, ma dem ci euh, monsieur monsieur Niang da ngay partager même avec en tant que koo xamante ne vous de la communication tey gis nga kàddu yi nga xam ne Ba Jaxate yëkkati na ko naam bu fekkee si en 2022 li nga xam ne moom la aadama Fall wax ci kaw Ba Jaxate waaw tey balaa may ñëw ci loolu damay mhm. ñëw ci euh, mhm. assises dinañ ci ñëw defal ma foofu brèche rek ñu tëj ko ñu dugg. defal ñëwal ma ci Bah ñu ñëw parce que réforme yi. réforme yi il a écrit il a trop de choses. dama lay jox information il a écrit un très bon mhm. par rapport aux aux aux ma ko.